nit ñi lolu nak vision mon vision coco amut do meuna dem motax manon len Sall amut vision xam ngeen ne ba mu la nous dafa tudde ci seen yoonu yoonu novembre 2013 comme comme ni rek mat at dama defoon ben keuyit wané ci lima gissé safaray jangoray Sénégal pour un nouveau programme alternatif gëm sa bop vision pour un nouveau programme alternatif ñi jang tubaab xam nañu ne boo nouveau programme alternatif moy noppal bo gëmul sa bop do mëna a motax ma tuddé ko noppal gëm sa bop bopp vision bobu nak nit da ngay am vision xam fi la bëgg a réew mi yóbbu ko fële xamit naka nga koy défé